suñu Sénégal ne nañu doon benn jàmm ci Sénégal jàmm ci Sénégal lay ñaan jàmm ci Sénégal ñëw leen ñu liggéey suñu Sénégal

hay hay hay hay hay man saalum saalum bi la de lépp la àndul ak jàmm waxuma si dara lu dul jàmm jàmm rekk ko gën hé ku xamatul fa nga jëm dellul fa nga bàyyee ko woon jàmm ji fi sunu maam yi jëmbatoon sunu bàyyi suuxat ko wax dëgg yàlla ngala ñun bu ñu ko yàq lu dul jàmm jàmm ma ko gën lu dul jàmm jàmm ma ko gënal lii naan yuur bu ñëwee ba ci bopp faxas ko jot na te rafetul doomu gaynde njaay wàcc waasoom jaxasoo xar yaak bëy yi day indi yabe jàmm ji ñuy sàkku di ko ñaan di ko ñaan defaral sa xol bi ma defar sama bos lu dul jàmm du yaam ci boppu boroom fitna nelaw ku ko yàlla rëbb na la jàmm ji ñi bienvenue dans votre émission xew-xew bés bi nii naa leen bu baax a baax ziar leen amat nañu mbégte dellusiwaat fii ci seen émission xew-xew bës bi comme ni ngeen koy amee euh, mardi bu nekk bu 12 heures di mu jotee ginnaaw commercial ñu ànd ak yéen ci seen émission xew-xew bés bi. Euh, El Hadji Fallou Fall ci kàddu gi ànd ak mboolem koo xamante ni rek yaa ngi koy topp ci 88 point 5 nuyu naa la bu baax ziar la ñu fàtte mbokki internet yi nga xamante ni ñu ngi ñuy topp ci sunu ay plateforme lu ci mel ni Facebook BFM International YouTube Baol Médias l'officiel nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen am nañ mbégte saa su nekk rek di ànd ak yéen seen émission xew-xew bés bi comme ni nga xamante ni noonu lañ koy defee saa su nekk rek ñëw waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moo di gox bi euh, département bi waaye itam tey ñu fa yéene ñëw waxtaanaat ci poñ boo xamante ni na mun nañ koo di waxaat waxta dañ koy waxtaanee lu bari ci li nga xamante ni moo di plateau yi lépp ngir bëgg mu am ak coppeeku donte ni euh, comme ni ma koy waxee rek euh, lépp lu ñu fi waxtaanee ngir mu jariñ askan wi loolu rek lañ ci daal di jublu moo tax saa su nekk rek ñu am mbégte di ñëw di ànd yéen ci li xamante ni moo di xew-xew bés bi. tey nag ñu na ma waxtaanee li nga xamante ni moo di sécurité bi nga xamante ni moo nekk ci gox bi. Euh, waaye nag tey dañuy daal di euh, préciser benn benn benn secteur boo xamante ni fan yi sonn nañ lool lool lool lool lool lool euh, foo takk seenub coono romb na ko ba sax ñoom dañuy sàkk ku leen dimbali ci jafe-jafe yi nga xamante ni actuellement ñoom ñu ngi koy dund bu ko defee ñoom la ñuy àndal tey ci li nga xamante ni moo di seen émission xew-xew bës bi Euh, di fële ca Kër Baylaat Aribaaru Cissé euh, marché Maam Say Nabou Ndiaye euh, marché boobu nga xamante ni bañ ko inauguré yàggul liggéey ba commencé di dox bu baax a baax waaye la muy dox dox dox dox dox jafe-jafe ya fa nekk ci ay ay ay ay ay violation maanaam ay agression du moins metti na bari na ba foo ko takk rek romb na foofu agression boo xamante ni amul heure amul app waaye itam nu nekk nga koy gisee jafe-jafe daal ci agression bi xam naa ne moom bari na fa lool ba waral ñoom nag euh, tey sax dama naan dañ maa yónni te ku ñu yónni da ngaa war a ñëw rek wax li nga xamante ni ñoom wax nañ ko wax dëgg yàlla dañ maa yónni euh, seen ay jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko ci wàllum ñàkk sécurité waaw ci seen gox boobee di marché Seynabou marché maam na bu njaay nekk fële ca gaar ba ca côté domaine nekkoon nekk ca domaine ba marché domaine ba la tuddoon léegi mooy marché Mame Seynabou Ndiaye inauguré nañ ko tuddee ko tur boobu bu yàggul dara mooy marché bi nga xamante ni itam moom lañ mooy euh, ña ñu jële woon ca gaar ba ñoom la ñu yóbbu foofa tamit bu ñu ko fàttee waaye bu ñu fàttee ne gaar ba dafa amoon ay jafe-jafe yu baree baree baree bari yoo xamante ni amoon na fa jëm ci wàllum agression jafe-jafe yooya euh, pour ñu régler ko dañuy tas la nga xamante ni moo di gaar ba ñu tas gaar ba jël ay nit yóbbu leen ci yenn secteurs yi ñu nekk fa di daan seen doole ñu leen di wooye ay ay ay jaaykat nekk ci biir marché bi nekkaay ay ouvrier ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu ko woon ca marché ba ñu ci baree baree baree bari bañ leen fa jëlee dañoo dem foofa ca marché domine ba fa lañ leen sampal ñu nekk fa ñu yaatal ko tamit daal di leen di eh, defaral inauguré leen ko tuddee leen ko tur bañ mën koo tuddee marché Mame bu Ndiaye mu nekk loo xamante ni itam ba ñu ko defee ak léegi eh, askan way yeewoo ca côté boobu jafe-jafe yi ñuy dund ci agression fu ñu ko takk rek weesu na ko ci mitti gum mitti ak tar gum tar agression yi amul heure amul amul 6 heures du matin amul cinq amul amul 7 heures du matin amul 8 heures amul 9 heures amul 10 heure amul 11 heures agression yi heure bu agresseurs yi sentiré agressé dañuy agressé parce que secteur boobu noonu dafa nekk benn secteur boo xamante ni. la nekk ci ay mbir yoo xamante ni war na mën a mën na waral ay agression bari fa dafa bari bari na ay kër yoo xamante ni mu nga fa ay bâtiment yu eggul bari na itam ay euh, secteur yoo xamante ni amul courant dafa lëndëm këris bari na tamit ay espace yu yaatu yoo xamante ni mën nga fa def ay jëye yu baree baree baree baree bari te kenn du la yëg jigéen ñi dem marché bu ñu daan dem 9h marché léegi pour ñu dem 9h marché dafay jafe il faut que ñu mobiliser wu pour mën a ànd dem marché il faut que ñu am ay ay con ñu nekk ci conditions yu normal pour ñu doog a mën a dem marché su dul loolu amul kenn wala ñaari jigéen yu am sañ-sañu ànd donc dem marché de marché Mame Seynabou Ndiaye bi di marché domaine ba demaat tranquillement dem marché départ tranquillement amul kenn ko am fit boobu noonu li ko waral mooy agression bi dafa metti metti ba foo ko takk weesu na ko te buñ leen buñ leen dëkk di jël la nga yor bala sax nga dem amul problème mais ni ñu koy defee moo garaw dañ lay gaañ nangu li nga yor te boo paree yow ci bopp sa dootu mën a jariñoo sa bopp bay jariñoo alal ja parce que dañuy jël alal ja ba pare gaañ la te finalement du mujj fenn parce que doo gis benn taxaw bu boo xamante ni am na fa ndax chaque jour yëf fi day gën a yokk chaque jour yëf yi day gën a yokk li ma bëgg a foofu nag mooy ñi nga xamante ni ay ay ay ndaw lañ woon wala ay agresseur yoo xam ne ñu ngi woon ci marché gaar ba la majeure partie ci ñoom ñu ngi ci marché Mame Seynabou Ndiaye bii ñoom ñëpp fa la ñu dem installé waat ñu ci bëri ci ñoom 90 pour cent yi foofa lañ dem installé waat ngir bëgga a wéyal seenu agression waaw fa lañ nekk di def seen i njombe toujours di def seen i njombe heure bu nekk amul kenn ku leen ci mën a génne parce que foofu amul benn kaaraange amul benn kaaraange te li may wax nii liñ naan weddi gis bokku ci ku dem da nga gis la ma lay wax ku dem da nga gis la ma lay wax soo demee dékkal micro askan ba fay nekk askan ba ca marché bi wala askan ba nga xam ñooy ñëw ci marché bi di jënd ak nit bi ngeen laaj leen koo ci jox micro dina la ci wax loo xamante ni yow ci boppam sax da nga daan da nga lii warul mën a am ci ay jafe ay tolof-tolof yoo xam ne ñu ngi koy dund ci wàllum agression foofu noonu marché marché maam na bu Njaay mu ngi nekk fii ci boo jëlee Euh, boo eggee fii ci ñaari ñaari euh, kër Baylaat ca station vert blanc boobu boo jëlee direct bi jëm kër Kàbb marché maam ma comment dirais-je ñu koy wooyee ñu ko doon wooyee marché domine ba léegi ñu ko parce que am na tur bu bees marché domine ba la léegi tur bu bees moo waral ñu soppi ko. marché domine boobee nag jamono jii la gars yi daan dund ca marché gaar ba ci ay agression ci ay mitin mitin ay jaay doole jël sa alal ba tey jii foofu la gën a garaawe tey. waaw foofa la gën a garaawe te li ko waral mooy ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci gaar bi def ay tojaange di di di di xeex seen biir di faatante di agressé nit ñi bëccëg subaak ngoon guddeeg ñoo ñu noonu ñoo nekkaat fooyee di def seen ay njombe te loolu nag ñi ci war a taxaw bari na lool surtout ñi nga xamante ni aussi ñoo yor dëkk bi ñor yor dëkk bi nañ ci taxaw ci nu mu gën a gaawee parce que wax dëgg yàlla nag gars yi jigéen ñi sonn nañ jigéen ñi sonn nañ la fa passé am na benn benn benn borom kër boo xamante dafa génn jëm sarax sarax la jëm sarax paasam kese la yor gaa yi di gaa yi kar ko moom sax jot na comédie parce que ni leen bu ngeen ko lii dong laa yor damay dëppaat ndax du ma am paas ñoom finalement sax dañ mujj jox paas ba cest à que dafa am yoo xamante ni dafa mujj salté dafa ñaaw ba fës te loolu warul mën a am warul mën a am war nañ cee mën a taxaw nag rek régleel ko askan bi parce que nag dama cité rek li nga xamante ni moo di moo di marché domine ba dama ko cité rek waaye wax dëgg yàlla jafe-jafe yooyu yaatu na ci gox bi jafe-jafe ñàkk kaaraange moom yaatu na lool lool lool lool lool lool. kon loolu tamit nañ ci dimbali waa askan wa nga xam ne ñooy yeewoo foofa noonu ca marché domine ba jàpp euh, arrêt Bara Cissé jëm côté Mbadianeen jëm noonu côté Kër Kàbb côté yooyu ay jafe-jafe kese la ci wàllum insécurité amuñu courant bu normal. bari na ay batiment yoo xamante ni eggagul bari na ay espace yoo xamante ni espace danger la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yoo xam mënoo ko waa cité te amul benn poste police boo xamante ni mu nga fa pour man a gérer loolu yooyu problème kon loolu euh, nañ ci taxaw jàppale leen ci ci nu mu gën a gaawee parce que nag wax dëgg yàlla soxla nañu ndimbal soxla nañu ndimbal xam naa ne jombul ne incha allah fan yi di ñëw daañu fa wàccaat bu baax a baax a baax buñ fa wàccaatee Euh, xam naa bu ñu fay wàcc nag moom alaaji fal loolu la ñuy àndal ak gaay ak mbokkam yi bu ko defee ñu mën a yor suñu kaaraange ñu mën faa wàcc wàcc gu normal ndax foofu moom muy góor mu jigéen moom daanaka amu xam nga buñ des fois sax di nga dem ci bërëb nga naan heure tel boo fa jaaree wóorul mais fee moo amul heure boo fay jaar mu wóor heure boo fay jaar yaa ngi sikki sàkk heure boo fay jaar yaa ngi insisté yaa ngi xalaat waaw yaa ngi xalaat heure boo fay jaar rek yaa ngi sikki sàkk ndax nit a ngi a ngi a ngi fee taxaw di la waaw te heure bu nekk la parce que nag secteur yooyu dafa nekk secteur yu xaw a wéet ah dafa nekk secteur yu xaw a wéet parce que amul amul amul yenn yenn yenn yenn yenn lieu de fréquentation yi amul yenn lieu yi xamante ni ay ay ay comme niñ koy defee ci biir marché bi nga dem tey Kër Baylaat mu xaw a xumb parce que am na ay garage am na ay mm, ay boutique ay quincaillerie genre mais fee bu weesoo marché ba nga jógee ca marché ba war a demaat sa kër diggante boobu doo gis kenn maanaam diggante bi dox marché bi ak sa kër ak comme man ci doon diggante bi dox sa marché ak sa kër amul dara lu la fa mën a sauver bu ñu lay gaañ amul dara lu la mën a sauver surtout nag nga jógee nga jógee marché domine ba jëm côté mbajaaneen dugg noonu foofu moom yaa problème moom foofu moom moom danger kese kese kese kese la surtout nag nga nekk jigéen jël mbedd 30 bi jëm euh, mbedd bi jëm comment dirais-je euh, ndindi waaw mbedd bi jóge jóge ndindi jëm noonu jëm marché domine ba mbedd 30 boobu noonu euh, amul sax du tali sax mbedd suuf la nii rek suuf su bari sax nga xamante ni boo fi jaaree di dox yow donc buñ la dàqee boo dawee mën ngaa fakkastalu sax daanu kon yooyu euh, ñu ngi sàkku luñ ci gën a mën a gaaw taxaw euh, ñu saafaraal leen ko parce que ay jafe kese la yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy dund ñoom ñi nga xam ñoo fare foofa noonu ca euh, jàpp kër kàbb jëm noonu côté kër Cheikh Amar comme ni ma ko mën a expliquer côté yooyu côté kër seex Cheikh mar insécurité donc donc donc donc waaw wax dëgg yàlla 88 628 19 05 88 628 19 05 mën ngeen a jaar foofu ngeen ànd ak ñun 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ngeen ci jaaree daañu mën a ànd ak yéen seen émission euh, jotaay seen émission xew-xew bés bi ngeen ànd ceeg El Hadji Fallou Fall euh, fii ci rajo Bawol Média FM 88 point 5 nekk fii ci Mbàkke Bawol tablo caabi xàlluwa jëm Touba jàkkaarloo ak euh, marché Maam Rama jam ci Sénégal jam leen ñu liggéey suñu Sénégal dara gënul ne dara gënul ne doon benn suñu Sénégal doon benn nañu suñu Sénégal ne nañu doon benn jàmm ci Sénégal jàmm ci Sénégal lay dara ganul leen dara am xel bu sële dara gënul neex dara gënul neex tekki si sële ganul ne namor 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ngeen jaaree foofu di ngeen mën a ànd ak ñun seen émission xew-xew bés bi ñuy waxtaanee ñàkk kaaraange gi nga xamante ni am na ci gox bi rawatina fa fële ca euh, marché Domine Boye ñu gën koo xam ci marché Mame Seynabou Ndiaye nekk fële ca euh, euh, arrêt arrêt arrêt Bara Cissé jëm fële ca. Euh, kër Cheikh Amar gi nekk foofa ca euh, yoonu kër Kàbbu wa kon bu ko defee mu ngi noonu mën ngeen ànd ak ñun ci 88 628 19 05 bu ko defee ma daal di leen di ubbil numéro bi nga xamante ni ngeen ci ànd ak ñun bi 70 353 43 43 70 353 43 43 bu ngeen ci jaaree rek ñu daal di waxtaanee li nga xamante moo di jafe-jafe yi nga xamante moo di kaaraange gi gi gi askan bi war a am di ko sàkku nag ci ñi nga xamante ni ñoom fi toog yees waaye itam di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoo fi nekk yor suñu kaaraange fii ci gox bi ñu gën a saytu li nga xamante ni moo di askan wi rawatina foofa ca marché domine ba euh, marché maam bu Ndiaye askan ba fay nekk di fa yeewoo ci ay euh, fitna rek la ñuy daal di demee marché ka ñëw ngir li ko waral nag mooy jafe-jafe yi nga xamante ni nag ñoom ñu ngi koy dund ci wàllum agression bu metti bu tar surtout nag jigéen ñi jamono ji mënatuñoo dem marché normal euh, ndax euh, mën naa ne ña nekkoon gaar ba mm, daan def ay njombe euh, ñu ci ëpp ñu ngi fii ci marché domaine bi di def seen ay njombe ñoom tamit tasaaroo foofu di di di kar jigéen ñi di kar góor ñi saa su nekk bu ñu dem marché gi ci aju waaye itam agression yi ci biir kër gi nekk lu metti loo xamante ni ñoom ñu ngi koy dund foofa Euh, ànd na ñun ci 88 628 19 05 wala ngeen jaar ci 70 353 43 43 70 353 43 43 bu ngeen jaaree foofu rek incha allah daañu mën a ànd ak yéen ci nu mu gën a yaatoo ci seen émission xew-xew bës bi ngeen ci ànd ak El Hadji Fallou Fall fii ci rajo Bawol Média FM 88 point 5 nekk fii ci Mbàkke Bawol tableau bi xàlluwa jëm Touba jàkkaarloo ak euh, marché Mam Rama seen émission xew-xew bés bi itam euh, ngeen koy am talaata saa su nekk nag mu ñëw di waxtaan ak ci gox bi waaye itam di dalal ay borom xam-xam yoo xamante ni dañuy euh, ñëw jëmal fi seen gox waxal seen gox ndax loolu la émission bi di jëriñ képp koo xamante itam bëgg nga ñu dalal la ci émission bi ngir nga présenté fi sa gox waxal ko wala sax nga waxal li nga xamante ni moo di département bi mën nga ñëw. wala mën nga ñu woo itam ci euh, sunu ay numéro bu numéro bu émission bi jeex daañu ko joxe 88 628 19 05 foofu ngeen mën a jaar itam pour participer ci émission bi nga xamante ni moo di euh, xew-xew bës bi bu ko jaaree foofu rek incha allah daañu mën a ànd ak yéen ñu wax ci ñàkk kaaraange gi am fële ca euh, comment dirais-je fële ca marché domine ba comme ni ma leen ko waxee rek marché domine ba bëri na ay jafe-jafe yoo xamante ni jafe-jafe agression moom lañ fa gën a ràññee. te war nañ cee taxaw ngir saafara ko nag waaw saafara bi moom jot na sëkk parce que nag euh, man xalaatu naa ko parce que bu ma juumul am na benn sama benn naataango bu masa fii ci plateau bi wax ko ne na ñu jëlee marché ba yóbbu ko foofee na ñu jàpp ne noonu la euh, agression yi agresseurs yi tamit di déplacé di dem foofa parce que ñoom fu ñu fu ñu fu ñu mën a gis seen bopp rek foofa la ñuy dem te foofa dafa gën a yaatu foofa dafa gën a gën a gën a wéet mais si foofu tamit dafa bëri ay espace yoo xamante espace danger la ñu mën fa di nekk def seen ay jéye loolu nag ñi nga xamante ñoom yor wàllum yoon ci réew mi wala ci dëkk gox bi nañu dem saafaraal ko askan wa fay yeewoo ngir ñu mën di tëdd di nelaw ba yandoor waaye itam ngir ñu mën a am seenu dépasse dem di jënd ci la ñu tollool daal di mën a ñibbiwaat seen i kër euh, loolu mooy li nga xamante ni moo di yitte ji te loolu tamit askan wa soxla nañu ko te ku leen ci jàppale ñu daal di jël ci nu mu gën a gaawee kon bu ko defee rek képp koo xamante ni rek yaa ngi bëgg a àddu ci émission bi dañuy daal di joxe numéro yi 88 la 628 19 05 88 628 19 05 bu ngeen jaaree foofu rek incha allah daañu mën a ànd ak yéen ngir ñu mën a waxtaan ak yéen seen émission xew-xewu bés bi wala ngeen jaar ci 70 353 43 43 70 353 43 43 bu ngeen jaaree foofu rek incha allah itam daa ñu leen jël. mën a mën a mën a mën a gën a waxtaan waxtaan ba mu gën a yaatu ci seen émission xew-xewu bés bi. suñu Sénégal ne nañu doon benn jàmm ci Sénégal jàmm ci Sénégal lay leen. suñu Sénégal ne ñëw leen ñu liggéey dara gënul ne dara gënul ne 88 628 19 05 88 628 19 05 bu ngeen jaaree foofu rek euh, daañu mën a ànd ak seen émission xew xew bës bi comme ni ñuy ànd ak saa su nekk xam naa euh, ñu ngi signalé que ne waxtu yu jeex na comme que euh, gars yi mooy loolu sama gars yi hmm, sama gars yi <laughs> yàlla baax na. Euh, mu ngi noonu kon seen émission xew-xew bés bi la woon ngeen àndan ci El Hadji Fallou xam naa dañuy daal di dem ci li nga xamante ni moo di euh, publicité xam naa loolu moo tax te xam ngeen rek waaw gars yi sama gars yi mooy loolu sama gars yi ñoom ay jàmbaar lañ daal. 88 628 19 05 88 628 19 05 ngir ngeen mën a ànd ak ñun foofu ngeen di jaar. Euh, di leen wax ne rek euh, bu leen fàtte comme niñ ko waxee woon ci euh, jafe-jafe yi nga xamante ni marché domaine ba ñu ngi koy dund jamono ji ci wàllum agression ñu gën caa taxaw ngir jàppale leen ca jafe-jafe yooyu ñuy dund bu ko defee ñoom ñu mën a tëdd nelaw ba yandoor waaye itam ñu mën di jaay njaay mi ci jamono tabaski bi nga xamante ni ci léefi di gën a tare gën ci méttee nañ leen ci taxaw bu baax a baax bu ko defee ñoom danañ mën a jéem a mucc ci li nga xamante ni moo di mbir yi ndax euh, loolu ñu naan samba boo yi daal xam naa ne moom bari na côté booba te nañu nañu fa installé moom euh, kéemtaane na kon bu ko defee rek nañ ci jàppale ci nu mu gën gaawe gaawee euh, soxla nañu ko. Saré gënul ne na moom 88 628 19 05 xam naa foofu la ñuy euh, tàggoo ak yéen rek daal di leen di euh, bàyyee ak li nga xamante ni moo di euh, service commercial àndaat ak yéen yi ngeen am seen émission rap pure di ngeen ko fi am ministre tuuti rek kon bu ko defee rek dañ leen daal di tàggu. Euh, ba beneen yoon incha allah daañ fi ñëwaat euh, gën a waxtaan ak yéen ci askan wi ci gox bi nga xamante ni mooy sunu gox ñu ñëpp ñu bokk ko di xool nu muy def ba mu gën a jong hmm, daañu ci ñëwaat ci yeneen émission jombal na émission euh, dinañ àndaat ak yéen mardi incha allah ak invité comme ni nga xam ne lañ koy defee saa su nekk rek incha allah kon dañuy daal di leen di tàggu fii di leen dig daje mardi incha allah daañ fi ñëwaat. 12 heures et demi ginnaaw publicité daañu fi ñëw 12 heures ginnaaw publicité dinañ fi ñëwaat incha allah euh, mu ngi noonu lu ñu fi wax mu jubloo loolu lañ fi bëggoon lu fi dëng ñàkk mat la yàlla mooy borom jàmm ku ma jàmm nga am jàmm euh, yàlla ñu yàlla defal jàmm yéen ñi nga xamante ni itam da ngeen di bëgg ñu invité leen euh, ci seen émission xew-xew bés bi mën ngeen ñëwoo ci 70 353 43 43 70 353 43 43 70 353 43 43 képp ku ñu ci woo ñu dalal ko fii ci plateau bi waxtaan ak moom ca goxam wala ci euh, département bi incha allah bu ñu yëgloo rek daañu ko invité incha allah kon mu ngi doon cant ak ngërëm ñeel na képp ku ñu doon topp numéro service commercial bi 77 la 704 29 92 koo xamante ni rek woote nga ci di nga mën a jëflanteeg service commercial bu rajo Bawal Média FM. 88 point 5 nekk fii ci Mbàkke Bawal tablu caabi xàlluwa jëm Touba jërë ngeen jëf maa ngi gërëm Bawal Média di leen encouragé di wax ni lu tasaaroo ba ñu ubbi ko fu nekk mooy rajo yi te mu war a yegg ci télé yi mooy indi njëriñ